ndax yaa ngi fàttaliku ñaari dig yu mag ya borom bi digoon Ibrahima ci bu jëkk yàlla dafa wax ne dinaa la def ngay cosaanal xeet wu yaa barkel la màggal sa tur ngay buntu barke yàlla def na li mu dige woon Ibrahima jur na Isaaxa Isaaxa jur ba te ba jur fukki doomi góor ak ñaar yi meññ fukki giir ak ñaar yu bànni Israyel yàlla waxoon na itam ne xeeti àddina sépp dinañu taasu ci sa barke li wér mooy ñaareelu wàll woowu ci dig wi it yàlla namoon na ko matal bi yàlla tànnee xeet wii dafa bëggoona a won waa àddina sépp ni mu mel ak ni ko bàkkaarkat yi mën a jege saa yu yàlla mësaana aar xeet wi la mu ca namoon moo di sàmm pexeem mi mu naroon a jaarale ci ñoom ngir barkel nu ndaxte ci xeet wile la yonent yi mbind mu sell mi ak almasi bi naroon a jóge pexem yàlla mu ngi jëm kanam daanaka junni at ak juróomi téeméer laata almasi bi ñëw yàlla woona Musaa di kenn ci sëti Ibrahima muy yonentam Musaa moo bind juróomi téere yu jëkk yi ci mbind mu sell mi naka noonu it yàlla jëfandikoo na Musaa mu jiite te génnee ñetti millions yi nit ñu soqi ko ci Ibrahima goreel leen ci seenum njaam yàlla ci boppam moo leen doon gindi ca màndig ma jaarale ko ci niir wu leen doon aar ci naaj wi bëccëg te bu guddee jumu safara di leen leeral loxoom bu am kàttan ba ubbi leen yoon ci biir géej gu xonq ga ba ñu rëcc moo leen dundale mburu mu wàcce asamaan nàndal leen ak ndox mu bale ciw doj te it yóbbu leen ca tundu sinaay wa ca suufu tund wa la yàlla waxee mbooloo ma ne leen ci man di nekk ak nguur di xeet wu sell yàlla dafa bëggoon xeet wu sell baral leen boppam te wuuteeg yeneen xeet yi leen waroon yépp waaye xeet wa xamul woon li sell di tekki gisuñu woon seen bopp ni bàkkaarkat yu ñàkk doole dañu xalaatoon ne yelloo nañu mbaaxu yàlla wante borom bi bëgg leen jàngal lu jëm ci merom mu tar mi jëm ci bàkkaar ba tax mu wàcc ànd ak safara su yànj ak dënnu yu tar boole ko nit bu xumb tund sinaay wa di saxaar ndaxte borom bi wàccoon na ca biir safara saxaar sa di jolli ni bu puur te tund wa lépp di yëngu liit ga doon gën a te am doole bi Moussa di wax yàlla di ko tontu ca biir dënn wa benn ndigal képp la yàlla joxoon aadama léegi mu ngi waaj a jox fukki ndigal xeet wu bees ñu bare ci xeet woowu dañu jàppe woon seen bopp ni ñu baax ba tax ñu yelloo nekk mbooloom yàlla borom bi daldi leen jox fukki ndigal yi ci bu jëkk ak ay kàddu yu dëgtu te xumb ca kaw tund wa gannaaw gi mu def ko ci àlluway xeer nanu jàngandoo fukki ndigal yi benn bul am yeneen yàlla ndare man ñaar bul sàkkal sa bopp xërëm ñett bul tudd turu yàlla aji sax ji ci neen ñeent nanga fàttaliku bésu noflaay bi juróom teralal sa ndey ak sa baay juróom benn bul boom juróom ñaar bul njaaloo juróom ñett bul sàcc juróom ñeent bul seede lu dul dëgg ci sa moroom fukk bul xemmeem sa jabaru moroom walla dara lu mu moom yàlla dafa ne Muusaa mbooloo mi dafa war a jëfe lépp li nekk ci fukki ndigal yi te képp ku déggalul ndigali yoonu yàlla wi te bañ koo jëfe dina alku nan nga foog ne noonu la mbooloo ma gise boppam ba ñu dégloo fukki ndigal yi ba noppi xalaat nga ne ba léegi ñu ngi doon jàppe seen bopp ni ñu baax te yelloo dëkk ca nguur yàlla gu sell ga yow nag ndax xalaat nga ne ku baax nga ba yelloo dëkk ca nguur yàlla gu ñàkk sikk ga jàngaatal ndigal lu jëkk li bul am yeneen yàlla ndare man ndax foo toll yaa ngi jiital yàlla ci lépp su demewul noonu xamal ne tebb nga ndigal loolu jàngal juróomeelu ndigal li teeralal sa ndey ak sa baay su fekkee ne mës ngaa déggadil sa ndey walla sa baay yëgal ne fa kanam yàlla tooñ nga léegi nag xoolal juróom-ñetteelu ndigal li bul sàcc su fekkee ne mës ngaa jël loo moomul mbaa nga def naka sudul noonu ca lekkool ba jàll ab joŋante xamal ne xëtt nga ndigal loolu ndax mës ngaa fen kon na nga xam ne xëtt nga juróom ñetteelu ndigal li ndigal lu mujj li dafa nuy wax ne xemmeem sa yëfu moroom baaxul yàlla dafay gis sax bàkkaar bi nëbbu ci suñu biir xol ñaata bàkkaar yàqoon diggante ba yàlla amoon ak aadamaak awak awa benn dong noonu yàlla meloon nag soppikuwul te du soppiku mukk ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp yàlla dafa sell te du seetaan mukk di bañ a àtte bàkkaar ndax dinga nga nangoo nekkandoog mbaam xuux mu dee ba nëpp cib néeg noonu la sunu bàkkaar xasawe fa yàlla yuri la ko ca néeg ba medd ma nekk du tax mukk xeej ga dañ noonu it sunu jëfe diine lu mu baax baax du tax mukk sunu xol set fa kanam yàlla ni ma seetu mën a wone tilim ji ci sama xar kanam noonu la ma yoonu yàlla di wone bàkkaar bi nekk ci sama xol waaye ni seetu mënula dinde tilim ji noonu itam fukki ndigal yi mënul setal sama xol ndaxte sàmm yoon wi taxul kenn jub fa kanam yàlla solob ndigal yi daal mooy wone bàkkaar sama mbaax mën a fés dama war a xam ne du tax ma yelloo dund ndoog yàlla ci jataayam bu sell ba danu soxla ab musalkat fukki ndigal yi xamaloon nañu bu leer xeet wu bees woowu lan mooy lu baax ak lu bon lu baax la woon waaye am na xabaar bu bu nekkoon ci yoonu yàlla wi nit am na jafe-jafe bu mag maanaam seeni baakaar a tax ñu war a dee tàqali ko ak yàlla xabaar bu neex bi moo doon borom bi dina nangu ñu tuur deretu mbote ju yëkk ju bëy ak ju petax ngir muurande seeni baakaar noonu bés booba yàlla doon joxe fukki ndigal yi newoon na Muusaa nanga ma defaral ab saraxalukaay nga di fa rendi say saraxi mala ndax gis nga Moussa teg loxoom ci bopp xarma ak nit ñi taalal seeni loxo jëme ca xar ma li ko waral moo di dañu gëm li yàlla wax gëm it pexe mi mu joxe ngir nit mën a jot ci njégalam gi sëfu ci kaw xar mi tooñul xar mi nag dees koy rendi deret jiy tuuru mooy muur bàkkaari mbooloo ma yaramu xarma dees koy lakk ba mu def dóom dóom bi mooy won mbooloo ma ni yàlla def seeni bàkkaar ñu xam ne jéggal na leen waaye doxaleen woowu di tuur deretuma la ngir baale baakaar yi takkandeer rekk la woon ci li yàlla bëgg dëgg-dëgg yoonu musaa wi dafa misaal xéewal yi waroon a ñëw te doon takkandeer ci yëf yu dëggu yi waaye du ñoom ci seen bopp looloo tax mënula yeggale ci mat ñi daan jege noonu yàlla nan la ko doon mëne ak sarax yu ñuy def ak a defaat atoo at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 xam nga ne mënuloo jël oto fawukaay di ko weccoo ak oto bu bees noonu njëgu deretu xar mënul yam ak njëg gu rëy gi yoonu bàkkaar ak dee laaj sarax bu gën boobu moo waroon a am su fekkee sax saraxi mala yi mënuñu woon fay boru bàkkaar yi mënoon nañu misaal ki ko mën a def nu ñëwu musalkat bi ñu dige woon di gën a jege borom bi di gën a bareel yonent yu mu dénk sasu bind ay yëgle yonent yu jëm ci kii di buur ak almasi yii yenn la ci dig yu yàgg yooyu jànq bi dina ëmb jur doom ju góor cey yow betleyem efrata ci yow lay génne ki nara nguuru te cosaanoo ca jamono yu yàgg ya ba dara nekkagul woon doom juddul nanu mayees nanu doom ju góor dees na ko tudde ku yéeme yàlla aji kàttan ji buuru jàmm seen yàlla ngoog di ñëw moom ci boppam te dina leen musal bu booba gumba yi dinañu gis tëx yi dinañu dégg làgg yi dinañu tëb ni kéwal mu ngi mel ni mbote mu ñu jëme ca rendikaay ba bënn nañu samay loxo ak samay tànk musalkat bi ñu dige woon dina ñëw waaye kañ lay ñëw te it mooy kan nan la waxi yonent yi nara ame